te ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ku ci nekk ci juróom ak ci santam comme ni ngeen ko gisee tey si lu jëm moom moo ñu woo fii ci five maanaam crime li ñu fi nag mooy dañu fi ñëwoon àjjuma mu tëggoon fii soirée bi fees mu neexoon mu waay benn morceau jàpp ñett ñu door fi pompe à gaz ñu ne problème mu insécurité la tey ñu ñu war fi nag soirée boo xamante ne ni entrée libre la mais ñu gis fi benn. décision boo xamante ni dañu ko jël maanaam sécurité bu bari boo xamante ne ni gis nañu ko fi sécurité bu sévère ñu jël ci ay disposition yoo xamante ne disposition yi mat sëkk la dinañu xool baax a baax a baax sécurité yi ban anam la ñuy liggéeyee buñ ci mënee waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ci ñi nga xamante ne ni itamit ñoom ñooy ñëw baal si itamit buñ ci mënee waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom ñu dem dugg si biir xool gaa yi lamin Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi jëloon bu baax. yaa ngi doxal. maa ngi doxal kay. bi passé gars yi dañu fi ñëwoon ñu dóor fi pompe à gaz tey ngeen ñëwaat mais sécurité bi doy na waar. waaw doy na waar kay parce que bi passé ñun sax fekk ñu fa ñu ngi doon ñëw gars ñu ngi doon wax sax ñu doon def teew waaw xam nga rek ñoo yëngu si bul taaral bi tamit gaan bëgguñu kenn taaral ñu parce que gars li ñu def bi passé dafa taaral gars yi barke Serigne Touba te waruñu ko def du yoon tamit bul taaral la ñu war a la ñu wax daal kenn warul taaral kenn billaahi. maa ngi lay bëggee. waaw maa lay ziar bu wér jaajëf. soxna nga waay. joxal gi joxal gi joxal gi voilà kii bi waaw waxal. jàmbaar maa lay ziar. waaw maa ngi delloo ziar. naka waay. cool. soirée bi passé vendredi bi ñëwoon nga. non yow moo woon dëgg de. waaw. la mooy seen diggante ak Sidi Diop bi. waaw boo ko ndey boo ko baaree bëgg ko tamit teg si. waaw. ñu ne suñu artiste bi bëgg nga xam nga ne fu mu fu mu xewle ma bu ñu ko yëgee dañuy ñëw quoi. waaw mooy suñu star. da ngay ngeen daa tëgg fi pompe à gaz yow loolu lu la def. waaw métti woon na ma trop franchement métti woon na ma trop moo tax tey dañ ñëw ambiance dooleel ko gën a ñëw bëggoon nañ Sir Diop doral nañu ko quoi. sécurité bi tamit loo ci wax tey sévère na de. waaw tey sévère na lool foog mu jaar yoon. ma caga kenn du ko nax ñaari yoon. moo tax tey fa mu ñëw dëgëral ko yaa ma ko a xam. bi la. <laughs> Cheikh Malaysia. siyaar naa la gannaaw si loolu yaa si jàmm. am nga jàmm. cool. bi fi ñëw ñu déglu pompe à ñaar mos xaw ma ñett daal. avant ma kaa continué leen déglu pompe à gaz bi. mais rafetlu ma ko quoi. ku def loolu def na lu ñaaw parce que wóorul. pompe à gaz ñu ko dóoree ñun ñëpp dañoo génn. am jigéen ñoo xam dañoo xam si biir. ñu jàppee leen génne leen. parce que loolu rafetul quoi parce que mënoon indi leneen rey nit wala dara quoi. mais gars yi li mu leen wax rek mooy nañ bokk nañ bokk ndaw ak baay quoi te xam ne ñun ñëpp ñoo yem quoi bi laaxi yaa ma gën a xam parce que lii mooy indi leneen jur leneen parce que ñu ngi seetaan télé bi gis Mbadia Seck du wax yoo xam ne mooy loolu du waxu artiste quoi gars yi nañ bokk ndaw ak baay quoi yaa ma gën a xam. seen diggante ak Sidi Diop. waaw. seen diggante ak Sidi Diop ànd bu yàgg la wala. waaw Sidi Diop ñun dañ ko bëgg quoi mu naa ne miinu ma ko bu baax sax mais maa moom stade Guédiawaye lañ mosoon bokk benn terrain quoi. yooyu noonu dem foofu nii ma ko baax mais sama waykat la dama ko bëgg mooy loolu noonu mais li ma koy conseillé daal mooy na kii quoi nag na xam ni muy doxalee yaa ma gën a xam dama kiiwam quoi ba nga yaa ma a xam topp nit ñi yaa ma gën a xam moom tam maa ngi gis mu ñu wax yoo xam ne mooy loolu noonu waru ko quoi si artiste nag xaw ma yaa ma gën a xam rek. xam sécurité bi par rapport ak keroog. waaw waaw sécurité bi tamit mën naa ne ñoom tamit garder. lépp lépp tam mën naa ko toor mën naa ko jox ñoom quoi parce que Séviteurs war na gën a gën a kii quoi di gën a dëgër parce mën a làmb xool la xool loolu duggaale yaa a xam mais ay pompe à gaz ak yooyu quoi ñoom teg naa leen ko tamit toor bi quoi parce que loolu du yoon yaa ma gën a xam. maa ngi lay jaajëf. jaajëf teegal. ah, ah xam quoi yàgg yàgg na bee passé faay bi waaw yooyu am na yàgg na bee passé faay bi kenn xamul kan yàlla tey dañoo jël suñu matuwaay nag quoi ku ñu dugg dina ne paype jigéen at góor duñ si bàyyi kenn man maxu sax kay koy paype tey ñun ñëpp dañuy paype. waaw ku amul carte d'identité du dugg noonu ndax fii gis nañ si ay booy yu ndaw yoo xam ne duñu dugg daanaka boo majeur woon dinañ la bàyyi na dugg bu mu xoolee bu mu xoolee si bët xam ne ma majeur na ba majeur si amaat incha allah ndax merci waay.